tey ji amul ci benn réew boo xam président wala gouvernement mooy développé dëkk dëkk population moo koy defar mooy yar teggin nangoo qui mais Sénégal on parle de politique du 1er janvier au 31 décembre am ay politiciens yoo dañuy nekk ci internet bi comme Ousmane Sonko dama koy limee dama koy dama koy nommer quoi parce que tey jii boo jeune man j'ai rien contre lui hein. c'est un sénégalais am droit prétendre être président de la république mais ce que li nga xam ne tey jii moo ci Ousmane Sonko Moi, Ousmane Sonko ko dudd ci réew le du wax ci moom lu baax pour moom moom rek a set moom rek moo jub moom moo xam lépp te bërki démb lañ toog fii di accuser affaire u 12 milliards yo xam ne daf ko doon euh, xam nga tey jii boo yaakaar yow yaa set mm-hmm. dem ba xam nga tey jii li wax depuis boobu ba léegi xam nga dañuy wax laisse le mouton laisse mouton courir Tabaski viendra <laughs> li li mu doon jiiñ ni di di wax ni ay sàcc lañ ay politiciens yi fi nekkoon depuis 1960 ba léegi dañ leen war a rey ñoo xam ne ñoo xeex indépendance Sénégal Ablaye Wade nga xam ne ni mu amee vision ay Senghor ay Valdiodio Ndiaye ñoo xam ne du ñu liggéey pour Sénégal liggéey pour la liberté xam nga sénégalaise. Mhm. jàppale Sénégal ba Sénégal yeeg ak démocratie bi ñuy wax ci Sénégal ñooñu ñoo ko fi liggéey. Mhm. yow système boo xam ne ci nga jàng école ci nga am ay diplôme ci nga takk ay jabar ci nga am ay kër ci nga am lépp foncier Sénégal sax si ngay financer sa parti ndax tey jii suuf soosu ñu wane mu koy discuter ci affaire u euh, Tahirou bi ñuy wax noonu. Mhm. suuf boobu muy discuter tey ji douze pour cent yi mu ciy laaj noonu mu nekk war a nekk benn douze milliards bu mu def ci poosam mais suufu Sénégal la te tey ji benn famille mën na am suufam gis symboliquement benn sénégalais suuf si di jar quinze milliards mu ñëw ni la am jox ma un million franc symbolique maa la ko may mais yow benn famille jël suufam jox ko benn sénégalais yow nga woo famille bi ni ko ñii dañ laa nax état bi man fi mu toll ni man je suis l'opposant le plus ardent maa fi gëna metti gars yi na len leen ci coin léegi jox ma sa dossier bi ubi dem wut créer sa ben genre société créer affaire escroquerie la mhm. est-ce que comprendre la mhm. tay jii lolu la tay jii il faut sénégalais yi baña a nangu ñu len di distraire parce que Macky Sall tay loo ko mën waxal xamni nek na ministre de l'intérieur nek na premier ministre nek na président assemblée nationale amna expérience tay jii ñom Malick Gakou yi ngay gis ay ma dikke Kenya, ñi opposé alu kii ki nekk pur ñooñu ñëpp nek ci temps Abdou Diouf nekkoon nañ ay ministre ñooñu am na expert mais yow koo xam ne mosul chef de quartier <laughs> yow xamoo dara ci état fen rek ngay def taxaw bëgg a topp bi yi man maa set ñeneen setul yow ñu lay jiiñ salafiste ngay wax nañ rey nit ñi ku leen rey doo am bàkkaar mais alkayda rek mo xalaat ray nit te doo am bàkkaar il faut xale yi nga xam ne ñooy Ousmane Sonko ñu man suma ma day wax peut-être ñi inga ak moom ak ñi nga peut-être ñoo kii ñoo naan maam góor dafa contre j'ai rien contre lui mais mënoo nekk si dëkk ñëw fekk kilifa yi gën a màgg ci réew ngay wax naan leen ku leen jekku na leen rey te ku leen rey doo ci am baakaar yow tu parles que du pétrole ak deret Ousmane Sonko foo ko dégg pétrole la ak deret parce que am na benn société boo xam ni bëggoon na gagné marché sénégalaise pétrole bi ni ko ah xeexal ma ci petrole bi comme que yow yaay opposant bi gën a ardent xam nga affaire demee noonu soo ko defee après ñun ñu kii la boo xoolee ay intérêt mais tey jii ñu ci dernier virage tey jii nee na na noppi na parce que ñëpp xam nañ ni découvrir nañ kan mooy Ousmane Sonko. Madiambal Diagne nga ko topp moom dafa doon wax ni Sénégal képp ku ko fi jiiñ sàcc wala nga jiiñ ko fi dara daf lay woo débat daf lay woo débat public ngeen ñëw toog mais boobu ba léegi waajaa nga laaj débat public demul demul. yooyu la c'est que ñi nga xam ni peut-être ñoo ànd ak ñooñu ñoo naan maam góor li te nag ko xam maam góor xam ni man je mange pas mes man je dis ce que je pense li ma xalaat ci moom rek laa wax mais j'ai rien contre